Barcelona al gi jëlee fa bare borom

إله إلا yalla yaay buur di borom la ilaha illa allah

جاجي با لا اله الا الله انت يا ورني بارا سرمان زينا بيرم جا لا اله يا جابا لا اله الا الله الله يا ورني بارا زياري يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله كل سيدنا بجام يا جبال إلا الله لا يبور ببرار زينب زاوي جندا مام شرف الله إلا إلا الله Sëriñ Bunja Maam Cheikh Ibra Fall yàgg ba Maam Cheikh Ibra Fall lamp nga niram la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Sëriñ Fall la ilaha illa Allah yàlla yaay buur di borom إله إلا الله لا إله إلا الله ذكر فعلا

Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, لا إله إلا Amina Amina Amina Amina يا الله يا الله يا الله يا كفي يا كفي يا كفي يا كفي سيد منتخب يا كفي Freeze it, freeze it, Mustafa ya Gabriel ya Gabriel Serigne Abdou Ba ya amino ya no ndax yàlla na la na la la la la ndax noo ngi santat góor yàlla bu baax a baax day rafetlu liggéey bi ndax lii rek am solo bu nekkul si li dañ naan daal di lekk ne leneen rek kon yàlla su borom defal ay séer mun góor fekk kon rek tawfeex su borom mosul na ak musiba ak balaa déggu ñaaw gàtt te defal na jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxira ci barkeb si Ahmadu Bamba ah sëñ Mor bu baax la di ñaan bis bi nga taxawee nii ak mboolem ñu ngi ko àndal mboolem daayira ak soppi sopp yi damay wax ne man maa ci maa ciy béy man maa jiitu ci sopp yi waaw comme moo bu baax di ñaan lépp lu bëgg ci xasida yi Serigne Touba ak kër yi laa ilaha illa sa borom yàggalee la fa ci daraja yi laa ilaha ngi nuyu ku nekk di jéggalu kàddu yi may bëgg a yëkkati ngir jëm ni Serigne Touba rek ak Serigne Saliou mi ñu yaakaar tey ak ëllëg mu ne jox leen man ndaw ñi ma def ci ñoom li sëñ Tuubaa defoon ci mag ñi su ma ko yëloowul sama barkeeloo ko ndaw yooyu bu ko ragee yow ma lay yam yàlla bu ñu ci kenn tiitu te ni mbër yi di def ku nekk am fan sa club ci làmba yeeg ci football yi ñun am nañ fan sa club murit joon kon damaa bëgg képp bokkul ci kuréel gi na ci bokk ngir jëmi sëriñ Tuubaa ndax dañu di ay tuut tànk yoo xamante ni sëñ bi bind na bàyyi jëf na bàyyi wax na bàyyi kon waruñoo def leneen lu dul dëkk ci ndigalub sëriñ bi ñun ay tuut tànk lañu waaye suñu coobare taxuñoo jóg maay ñaan ku nekk na xool li ci poosam lamb même bu dee ab ñaar fukk ñaan ci ay soxlaam ñoo joxal ma ko sama Baay Faal bi ni ma ciy doom nii dama ciy am ay ñaan moo tax ma ko koy def saa wu tasee tant te ku ko def yàlla yóbbu na ku nekk ñaan na ku nekk ñaan ab cent franc rek laay laaj am su fukk kese rek laay laaj na barte bare ndax addiyee bi ñuy joxe nii bu keroogee yoomal xiyam taxawaayu sarax lay taxaw ci ñun te addiyee gi moo gën ci sarax ñun taalibi Sëñ Tuubaa yi ñu ngeen ko joxe si yàlla de naa ne sax damaa baax ndax sama jëwriñ sëñ Omar daaneel na ma ba fu mu toll nii damaa luur sax ndax comme dañu ne lu ñëpp bokk rek loo ci am mu doy la moo tax ñu tourné moom daanaka <laughs> xaw na maa yóbbu foofu waaw ndax njàng bi original bii mooy original xam nga original dafa am original ak pogoti ak Dubaï man yaa ngi yëg ci portable yi waaye bii original bi la mooy sëñ Tuuba rek ka tax ndax kalimatul la ilaha illallah daal du ko tënk dara loo ko ci boole rek mu soofal sëñ bi bëgg na jàng mais am na yoo xam ni moo koy gàllankoor kon bii mooy original wallahi laa ilaha illa hu barki sëñ Touba Mbacke sëñ man ñii di wax ak yéen ñii di wax ak yéen wallaahi alhazim sëñ Touba laa yaakaar moom laa gëm seetuma keneen lu jantuma leneen teg ci ndax man nii ngeen di gis na jàng xasida yi wallaahi alhazim kenn jàngalu ma ko ci benn école kenn jàngalu ko ma ci benn daar wallahi laa ilaha illa huwa kenn jàngaluma ko ci benn école kenn jàngaluma ko ci benn daara école bii Pambal laa jànge kalaamun xadimun laa yumaalu samaahu tanasa an hawli wa fiili wa niyaati bay diwén laa mos a jàng ci école ba waaye xasida yi ngeen mos a ma jàng ko wallahi sama bii oto laa ko mokkale sëñ Touba defal na ma ci loo xamante ni saa su ne maa ngi koy sant bu baax moo tax xasida yi dama koo fonk dëgg la sama baat neexul sama baat neexul mënumaa jàng waaye sëñ Touba defal na ma ci ku dul ku yàlla bind man bu sëñ Touba nekkul si yow rek man lu jàntiwuma la te ku ma woo lu dul sëñ Touba doo ma gis mukk ci àdduna ci koo xamante ni kii da dee liggéeyati na sëñ tubaay moo la ñor billaay boo ma woowee dagg sama yëpp a ñëw waaye xasida sëñ tubaay ñëw ñëru la ba nga am koo xam ne kii dafa wàcc liggéey nga ñëw woo xosal xasida yi man maa moo tin akasa doo fa gis ndax man xam naa li ma am mooy xasida sëñ tubaay xam naa fu ma ko jëlee xam naa li ma sëñ tubaa defal ndax sëñ tubaa wallaahi xasim moo ma njëkkane moo ma njëkkane wallaahu yansuruni wal xalqu sa nafsin bila darar boobu maa ngi bëgg a siyaara ak benn koo xamante ni kii saraxulli la moom la ñuy naan ibaado yi sëñ Tuubaa moo ma yee ndax boobu daf ma bëgg daf ma ne dama bëgg ziyaar sëñ Tuubaa topp na ma ci ay at heure bu ñëwee du jàppandi ci man waaye keroog bu ma ko ko waajal waatalee keroog bu may dem ziyaara ji wóor na yàlla sama oto daa paan ma yor 6000 francs pour bëgg yóbbu ko Touba su ma daan naan jërëjëf sëñ Touba sa moom day mer mu ne ma bàyyi li ngay def waaye maa ànd ak moom ma ñaan ci sëñ Touba keroog sëñ Touba moo ma yee guddi googu la laazim keroog yan sunu nii boobu laa ko bu njëkk a dégg ci sëñ Touba laa ko déggee.